politiciens yi ñoom ñoo yàq réew mi bu fekkee ne parce que yow li ngay wax ni chaque jour bu tribunal dañuy a basé wu si benn cas rek ne bon voilà euh, nga da nga nekk dañ la jàpp donc dañ la yóbbu instruction est-ce que loolu nekkul aussi jeter un la justice. non non c'est-à-dire que printemps. ne s'agit pas de prendre un cas d'espèce pour généraliser non non jëluma benn cas cest dire que cas yi ñu fi am bëri na. parce li nga wax ne goutte d'eau dans la mer la quoi. Hmm? je hmm? boo jëlee benn cas bu alors que boo demee tribunal. ban par exemple. ban cas wu par exemple nga xam ne da nga si joxe exemple. waaw xam nga xam nga lu tax ma joxe ci exemple. parce que cas wu Bah bi euh, président Diomaye fay toogee ba léegi. mooy cas bi nga xamante ni moom opposant yi ñoom. ñu ngi ah, ah, kii politique la quoi. Ah, hmm? euh, détenu politique la quoi. effectivement c'est-à-dire que. bon dommage que euh, bon moom moo nekk bëyu sarax bi. sincèrement parce que les autres ñi nga xam ne ay ténoram lañ fi mu ne nii donc li ñuy ragal mooy que ñoom dañuy bëgg a ut bouc émissaire. mais jàppoo ne par exemple comme ça ku ñu jàppee ni ku bu jàppee comme ku mel ni Bah am na ñeneen ñoo xamante ni tamit ñu ngi affilié wu si euh, waa Pastef wala Diomaye président tamit dañ leen war a jàpp. bon parce que dernièrement koo xam ne nee na moom moo defar cocktail molotov yi nga xamante ne moomu <laughs> par exemple. mais kooku mais kooku. est-ce que nekkul deux poids deux mesures. non génnoo c'est-à-dire que génnaat na démentir ne c'est pas lui.